mais tawat boo xamante ne am na fii suñu réew muy Sénégal tawat boobu ban la ak ban organe lay jàpp nasaraan ñu koy wax splénomégalie splénomégalie muy jàpp organe bi ñuy wax si nasaraan raat raat nag bu ngeen ko déggee bu ngeen xoolee estomac bi nii gis ngeen ko mbaaxu nit nii moom mooy ne si ginnaaw mbaax gi moo nekk nii olof yaa ngi koy wax kër ndoom këra ndoom ñu bari koy jaawale di ko tuddee gàddam or que gàddam mooy pancréas donc gàddam bi moo nekk lii mooy gàddam mooy pancréas mais lii ngeen gis nii moom mooy këra ndoom bi moom la ñuy wax raat gis nga ko nii voilà gis nga boo xoolee lii res la wextan waa ngi nii ci mbaax gi la gàddam bee nekk nii këra ndoom bi moom moo nekk nii gis nga ko dit bay continuer def nii donc ci moom mooy këra ndoom ngeen gis ko nii muy organe boo xam ne dafa am solo si nit mën nañu ko raat si beneen schéma aussi moo nekkaat ni fii lay gën a leere gis ngeen ko ni ak li mel ne ay raakol yi nga xam ñooy yóbbu deret ji si ñooy jël deret di ko yóbbu gis ngeen ko nii mu ngi nii lii moom mooy kërandoom ñu koy wax raat voilà donc kii moom mooy kër kërandoom donc mu ne organe bu am solo malheureusement ni ñi yàgguñu xam ak colom ndax buñu jëk dañ ko considéré ko xam amul benn rôle bu muy joué jàpp ni respect ko ëpp solo jàpp ni gàddam ko ëpp solo jàpp ni yenn organique ko ëpp solo or que kër ndoom boobu ñu koy xaraat lu am solo la lu tax fa nekk koo xamante ni moom mooy denc lu ëpp si li ñuy aar donc muy lymphocyte daanaka foofu la foofu lay nekk te lymphocyte dafa am solo plaquettes yi ak yenn si yu bokk si deret yi foofu lay nekk moom moo koy gàdd te xam nga tey bu infection amee maanaam nga am infection wala benn tawat bu bees dal la lymphocytes yooyu ñoom ñooy pour xeex tawat boobu <coughs> pour xeex doomu jàngoro kon lu am solo la ndax dencukaay la saa yu infection amee rek wala attaque bu la am rek bu dal am sa yaram moom mooy jóg mu génne loolu ñuy wax l'info si ñu dem xeex kon lu am solo la moom Këra donc warul am jafe-jafe su demee nag ba am tawat yoo xam dafa bari lum lay attaqué ba sonal la léeg nga am sibru fajoo ko bu baax parce que lii sabab jafe-jafe bu jógee si Këra Ndoom dafa bari mën nga am feebaru hépatite fajoo faj bu baax wala nga am. sibbiru fajoo ko bu baax wala nga am anémie bu sévère boo xam ne xëy na ñu am drépano yu mel ne SS bi moom lay dal jéem si wut solution bu yàggee dañuy dem ba dañuy sonal kërandoom boobu su ko defee kërandoom lay day commencé di jël volume di commencé rëy si la tawat boobu di jur ñu wax splénomégalie splénomégalie boobu lu doy waar la ndax gaaw la indi problème mais boo si teelul jug rek mën na di jafe-jafe. ndax bu kërndoo boobu demee bay jël volume bay commencé rëy dafay commencé di téye di retenir plaquettes yi yooyu nga xam ñoo composé deretu nit su yooyu baree ak plaquette bi demee ba bari mën naa fatt li ñuy wax rat bi côté doo dootu mën a circuler te loolu day daal am problème su jàngoro ñëwee dootul mën a génneeti lymphocytes yi pour ñu dem xeex kon da ngay daal fragile lu lay néewal doole lay faagal day daal di yomb kon li ñu yaakaaroon ni kërandoom boobu amul amul amul amul njariñ lu am njariñ la ndax dafa bari dafay jouer suñu système immunitaire loolu soo si wutu solution bu yàggee day dem ba day retenir li ñuy wax globules rouge di leen yàq ni muy dem ba di daan xeex ak yeneen kii dem ba xeex di yàq deret jooju su ko defee loolu mën na indi benn anémie bu sévère mais manque de deret bu sévère kon nekk na organe boo xamante ne lu jara sàmm la lu jara lu aar la kon ñu xam ni kër ndoom am lu am solo la ki nga xam ne dafa am tawat bi ñuy wax splénomégalie nan la koy sentir soo xoolee dina am saay bu mu yëg si biiram côté gauche bi surtout fii parce que moom boo xoolee mi ngi nekk si suufu diaphragme bi fii dënn bi jeexee ba biir bi commencé fa la nekk donc côté goos bi di nga sentir mu diis su demee ba commencé dëgër sax danga koy mën a téeg sa loxo da koy mën a dem ba jàpp ko sa loxo ndax léeg boo demee constatation médecin bi dana ko mën a téye kon nga xam ne mi commencé am feebar ndax warul dëgëre noonu dafa la souple dafa la nooy dina am benn douleur boo xam ne danga nga koy yëg fii mu yéeg jëm si mbagum mbagum càmmiñ mi di nga dem ba mën ngay wàccu même deret dam ay perte de sang ndax plaquette yooyu dem ba kii dafay dafay dafay bu demee ba gàddam bi dafay am ay fissure euh, créneau bi dafay dem ay fissure moom raat bi bu demee ba am ay fissure ay ubbeeku ubbeeku da dafay jaar pour génn kon mën na di même hémorragie interne kon nga xam ne loolu lu doy waar la donc dina indi fatigue aussi di ngay commencé gis diisaayu yaram ak sonn loo def sonn dina ni manque deret ndax sang boobu ngay perdre kon signes yooyu boo ko amee sentir benn lourdeur benn diisaay si sa côté càmmañ mu toll si suufu suufu diaphragme bi fii dënn bi jeexe maanaam mel ni dafa topp euh, dem ba si mbagu càmmañ bi léeg-léeg ngay miir léeg nga génn dret mën nga ko sax wàccu war nga dem def li ah une échographie abdominale pour xool réellement ndax créneau bi mu am problème amul problème kon loolu lu mat a lu mat a xam la kon ñu xam ni loolu ñuy wax rat muy créneau am lu am solo la si nit ndax dafay jouer si suñu système immunitaire su wéree nga am wér bu feebaree nga feebar ndax ki nga xam ne moo yor soldaar yi wala xeexal bu nit dee attaques ñooñu lay défendre su demee ba am jafe-jafe ba mënatu la génne soldaar yooyu problème daal di am kon loolu moom mooy rôle lu kërandoom kon nit ñi war nañ ko xam ndax lymphocyte dafa dafa am solo su ñëwee si solution yi bari nañ bari na ay solution yoo xamante ni mën nañ ko indi bu njëkk bi mooy su fekkee nag am li bi feebar bi muy splénomégalie bi da ngay fexe di am soble nga pressé ko ba génne jibi bi boole ko diwu olive su waree di ko jël boo demee ba am doomu soble pressé ko mën nga ko pressé sax nal ko si lu toll genn wàll kaasu ndox rek su ko defee jël lu tollook litre si huile d'olive bi nga jaxase leen saa yoo xëyee nga naan si kaasu attaaya boo ndekkee boo añee boo si kàttu yàlla boo ko def yàlla mën na dimbali mu jàppale si loolu huile d'olive ak ak bëgg nañu si bala ngay lekk soo ko amee ngay jël poivron muy kaani salaat bi soble ak lii céleri nga boole leen di ko jël bala ngay lekk avant chaque repas nga boole soble poivron muy kaan salade bi ak céleri donc soo ko dee jël ab engrais dafa lay dimbal aussi solution la bu baax si xeex lii di tawat boobu bi jàpp kërandoom kon loolu lu mat xam na kon solution yi bari na beneen bi mooy boo amee xobu karasol mi ngi nii soo amee xobu karasol bi mën nga jël juróom-ñaari xob rek nga baxal ko si litre genn wàll a butéel Evian am ngay natt ba mu fees ak ndox nga jël fii lu toll juróom-ñaari xob def ko si baxal ko juróomi minute nga segg ko di ko naan par genn wàll kaas boo ndekkee boo añee si kàttanu yàlla yàlla na solution bi mooy sungufu neb-neb boo amee neb-neb li ngay def mooy boo demee bay tëdd guddi da ngay jël kuddu yu mag yi añee ba mu fees nga def ko si litre ndox bàyyi ko mu fanaan si boo xëyee nga segg ko di ko naan par genn wàll boo ndekkee boo añee kooku moo lay dimbali ba biir boobu nga commencé mën gis muy jub dafay reesal kon loolu lu mat a lu mat a xam la donc ñeenti solution yoo noonu benn bi mooy huile d'olive ak soble bi ñaareel bi mooy poivron bi soble bi ak céleri bi ñetteel bi mooy xobu corossol bi ñeenteel bi mooy sunguf ndem-ndem kooku boo ko def si kàttu yàlla yàlla mën di mu fekkee taw bi solul si yow mu saafara su ñëwee si question yi ni ñu indi tey ku njëkk ki def ni moom day laaj ndax am na benn garab bu baax pour déboucher ay trompe loolu daal lay laaj ak luy faj li ñuy wax polip polype muy ay xeetu lu mel ni soccet lay doon fibrome sax la gën a jege ak kyste ndax ni ñuy faje fibrome en général lañ koy faje muy polype muy laaj solution polype joxoon naa solution muy limon boo amee ñeenti doomu limon rek da ngay booy tëdd nga xar ko pressé ko si lu tolloog litre ndox bàyyi xotti yëpp si biir bàyyi ko mu fa boo xëyee nga yendu ko naan bu guddee nga defaat ba mu juróom-ñaari fan kooku baax na si polype moom na ko dagg sax mu dañ bu dee wàllu trompe xaw na compliqué joxe woon naa fi benn remède muy laaj bi nga jël ko boo jëlee laaj bi nga gratté ko boo jëlee benn gélule nga gratté ko boo ko gratté wut diwu segal boo amee diw mais du doon diw bi diwu segal diw lu nu gerte bi segal bi lay doon nga wut leen laxas ko si booy tëdd nga def ko sa kanam ba mu sori bàyyi mu fanaan si boo xëy nga dindi ko soo ko defee xëy sa yaram xeeñ laaj xam ni pompe yi débouché woon daa nañu wut aussi mag ñi reenu tëmb reenu xariñ ak reenu sulukum boo amee aussi bu nekk juróomi reen nga baxal ko si litre ndox di ko jël par genn wàll kaas bu dee luy soog a tëju yàlla mën na la ubbi si kàttanam muy tëmb xariñ ak sulukum ñaareelu question bi kii def ni man dama am métitu di ginnaaw liiroon naa si sa page Facebook nga si waxtaan mais bëggoon naa nga jox ma solution di ginnaaw li koy sabab dafa bari mais kii bokk na si gën a gaaw boo demee bay tëdd rek nañ la ko tojal rek muy kaani xeeñ bi frotteel la ko bu baax bombal la ko si di ginnaaw ba mu saf nga tëddaale ko si kàttanu yàlla dara gënu gaaw si Modou Lo ñu leen tàggu fi leen jox naan bu seen émission bi jërëjëf